jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ah ak yi internautes yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement bu mag di profité nag ci weeru tedd wi di char ñëpp di baalu ñëpp ak te di leen baal di ñaan sunu borom yàlla nañu yàlla boole jéggal ci weeru sell wi te yàlla bu mu doon suñu mujjanteeru koor mbokk yi tey bu ngeen gisee teewaay bi nag li ko waral mooy tey dañu ñëw fii Caaroy Géej fekk fi un très grand champion fekk fi ndaanaan fekk fi nit ku baax wax naa ko léegi nee naa leen bi mu nu ñëwee bi ñu nee salaamaaleykum ci kër gi baa ma njoon façon accueillir bi mu nu accueillir rek sama yaram dafa daw dama xam ne kii tey fekk si nañ nit ku baax. Mhm. fekk si nañ un grand monsieur. fekk si nañ nit ku bari valeur parce que nit ku bari valeur moom mooy gis doomu aadama ni moom valoriser ko kon donc ñu ngi koy. Euh, euh, jaajëfal ci acte boobu mu def vraiment waaye nag ñu ngi jëm ci bés boo xamante ni bés bu mag la bésu le quinze mai mhm. ñu ànd ceeg mu Gate Events ànd ceeg Souleymane ànd ceeg as Bécaye mbay ànd ceeg la Bantamba TV ak suñu mbokk internautes yëpp mbokk yi di ñaan bés boobu yàlla nañ ci egg ak jàmm Baye Mandione war ci daje ak ki nga xamante ni moom mooy Zarko tey Baye Mandione lanu seet si hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye lu jiitu ngay nuyoo ma ma bàyyi comme ni ñu ko defee woon rek ma bàyyi Fadam moom tamit mu joxe opinion vite fait rek ñu dem salaamaaleykum axlu làmb Fadam a ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne tey jii li ñu déglee ci bés bi tey jii wartu ump kenn Baye Balla Mboup mm-hmm. maa ngi nuyu Boucar maa ngi nuyu Baye Mandione mi nga xam ne ni tey jii yaakaar naa ne jafe na tey jii ci loo xam ne nii tey jii nga indi ay journaliste sa biir kër mm-hmm. dal ñoom ci sa biir chambre mm-hmm. jox leen ñu lekk séddaloo leen lépp loo xam ne nii tey jii nit ñee leen ko waroon jox baay Mandione moo ñu ko jox tey mu nekk benn act boo xam ne ni tey jii axlu làmb yëpp war nañ cee jàngatee. Hmm. te xam ne lamb nit dootu ci defati lu bopp lu lu Falaye Balde defut. Hmm. nit dootu ci defati lu Papa Kane defut. Hmm. nit dootu defati lu kenn defatul ci làmb. làmb fi làmb tollu dafa dépassé yeneen niveau yi ko nit ñi jëlee. journaliste amateur. mbër supporter benn lañu. Hmm. il faut nit ñi am benn esprit de dépassement boo xam ne dañ koy am ci biir ñi. Hmm. te ji bàyyi ma ñoon bu ko neexoon mu ñëw ñu daw ñu. di yaakaar dara lu ñaaw ci nit ñi. Hmm. waaye dafa wàcce boppam wàcce boppam ci axlu yëpp tey jii ñun ñëpp ñoo nekkandoo ndogandoo ak ay jabaram ak ay doomam ñëpp ñu nekkandoo benn. li ma ciy wax rek ki ñu boole tey jii yor réew mi yëpp xam nañ ko. muy structure bu mag boobu di Moget Events. yaakaar naa ne Moget Events moo ñu woo le 15 mai. maa boole bàyyi ma ñoon Zarko boole am a neex ak Lac Rose. boole doomu dangul Jordan. boole Baare Ndiaye bu Faas ak Cobra. boole Arbouri Njamban 2. buuse buuse ak Alaaji Mbay rek doy na palmarès ci làmb loolu lépp tey ji am na promoteur yoo ne bu ñu ko amoon tey ji yaakaar naa ne combat bu nekk dañ koy bootal ay combat yu ndaw moo gét jël bés boobu yëpp def ko ci benn fan yaakaar naa ne jël ticket supporter def ko benn ticket bi gën a ndaw def ko ñetti téeméer kooku wàccoon ak làmb mm-hmm. bëgg na ku nekk gis boppam ci bés bi mm-hmm. waaye tey jii li ñu indi fii mooy structure bu mag boobu di moo gën events yaakaar naa ne nga tëgg làmb ju toll nii tëddee ko journée de la jeunesse mm-hmm. ànd ceeg Pape Souley Bathily ànd ceeg suñu papa as Bekaay Mbaye ànd ceeg Modou Mbaye ñoom ñëpp nga xam ne tey jii ak Pathé Sylla mi nga xam ne tey jii ci structure bi la bokk ñun ñu ñëpp ñoo ci gën a nekk Fadam bokk na ñi gën a ndaw ci structure bi axlu làmb nag tey jii moo gën events li tax mu woote la 15 mai daa bëgguñu ñu dellu si làmb fa mu nekkoon. nit nag mënta dem ci làmb te ànduk site internet. moo tax keroog bi mu moo woowee première réunion ci tradition mu ne ma Fadam li ma gën a bëgg mooy képp ko xam ne site internet nga da nga gis sa bopp ci bët bi. képp koo xam ne site internet nga te nga daan ñëw di liggéey ci làmb buñ la ko xañ ñëwal nga am la nga daan am ci làmb jël la nga daan jël ci làmb yóbbu sa kër. foofu la làmb toll tey jii ñu ngi dalal tey jii ko mel ni Baye Mandione ñëw këram ànd ceeg site internet yëpp ànd ceeg ak lu làmb liñ koy wax rek tey jii Baye yaakaar naa ne bëri na bés bu nekk ci wàllu làmb mhm. barki démb la bëri roi des arènes Gambie mhm. daan ko ci avec manière mhm. yaakaar naa ne diggante Baye Mandione Zarko nekk na combat boo xam ne àdduna bépp ñu ngi koy xaar a mu nekk ci France di préparer combat bi mm-hmm. ñu am yaakaar ci fan yu néew dina ñëw mm-hmm. ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm euh, di ñaan koor gi euh, ñu koor la mm-hmm. ñu ngi ñaan tey gi lépp lu ci waaye di ñaan yàlla na ko ci waaw tey jii nga xamante yi bésu maam Cheikh Ibrahima la sooru maam Sey Ndiaye daabay maam Sey Ndiaye borom jege ma ca saam góor jëgg bàyyi lalla fàll ñu ngi ñaanal tey jii lépp lu waaye ñaan ci bés bii yàlla ko suñu borom nangu ci barke weeru koor bi fada ma ñëpp jàmm di leen jox rendez-vous yéen ñëpp le 15 mai kattanu yàlla gaay yi ñu fàttali leen tamit que ni bu ñu jógee fii tey incha allah ñu ngi jëm euh, le 24 fële ca Grand Médine Albouri moom moo le dañu bëgg gars yi ni ñu def fii rek tey ñoom ñëpp ñu def mobilisation bu am solo ñu dem fekk ji ki nga xamante ni moom mooy Albouri Boucar. ma bàyyi la nga nuyu. bañ samp yow mu nuyoo rek. ah kon kon Baye Mandione ñu bàyyi nga nuyu ak ñi lay seetaan. waaw ñu sant yàlla bu baax rek. bu julli Seydina Mohamed. may sant di gërëm sumay ñaari waajur di la ñaan yàlla sama borom fay leen àjjana ak mboolem jullit di nekk ba nga yëpp ñu nekk hôpital yàlla son borom fëgg seen i bopp ngi delluwaat seen i njaboot ñu nekk ci prison yàlla son borom génn leen fa ngi delluwaat seen i njaboot weeru koor gi ñu nekk nii képp koo xamante ni woor nga yàlla na yàlla son borom nangul sa koor képp koo xamante ni wooroo feebar tax wooroo wala ragal xiif wala tax dara tax wooroo tamit yàlla na yàlla son borom defal tuyaaba ndax yaakaar naa ñiy woor ñu ngi am tuyaabo waaye ñuy joxe ndog ñu ngi am tuyaabo waa am na ñoo xam feebar da leen a mënuñoo woor mais surtout ñu ngi joxe ndog ñoon tamit ci koor gi leen bokk kon yàlla na yàlla sama borom jàmmal ñëpp yàlla na yàlla sama borom jàmmal ñëpp xam ma nangul ñëpp seeni koor xam ma lépp nekk tuyaabo ci àdduna bi yëpp xam nga may gërëm bu baax a baax a baax kilifa yi dinañ ne senegal da senegal benn bopp la kenn mënu ko waxal ñaar man ku ma xam-xam ni Sénégal moom laa gëm mu laa yaakaar àdduna àllaaxira loolu yàlla dogal yaa ngi dégg mais teewul ma borom Touba kenn gënu ma koo bëgg ci àdduna yaa ngi dégg moom Alaaji Maalik kenn gënu ko koo bëgg ci àdduna man te nekk Baye Niass ba ci maam Chérif Fall borom bisu tey bi di suma maam encore mhm. da ñu bëri xam ñu loolu man surtout maam Chérif Fall la ñu bëri ah. xam ñu loolu c'est direct laa la dox mooy c'est direct ah. te ñu xamuñu loolu yaa ngi dégg waaye nag yàlla moom ma jël jox ma sinal moom alayhi salaatu wasalaam ma ma ma gëm ko tey gëm ko ëllëg te yàlla ma ci yàlla sama borom ray dekkil ma ci yaa ngi dégg sunu kilifa Mouhamadou Mokhtar yi monsieu naamon dione yàlla na ko yàlla sama borom aar yàlla sàmb ko yàlla woyofal yeen bi si kawam ak bépp kilifa gu ne Sénégal yor xilaafa yàlla na yàlla woyofal yeen yëpp seen kaw may nuyu mbooloo mi fi tey mënuma tey jaar si tour journaliste yi kenn ku ne mm-hmm. waaye nit ku nekk am ngay kilifa tey warumaa toog fi sax di wax kilifa nekk fii mhm. ndax fii day dem yaakaar naa ñu fi gën a xale man ci laa kër gii may yeewoo tey ñaari nit laa fi mag ñëpp yaa ngi dégg mais mais gërëm bu baax suma pap Babacar Diop tey suma kilifa la suma lépp la mhm. mu ngi ci mbooloo mi toog suma Ablaye Thiaw yàlla nag yàlla suma borom at yàlla sàmm ko mu ngi ci mbooloo mi toog Mamadou Diagne suma papa la suma kilifa suma lépp mu ngi fii Chérif Assane suma doomu ndey démb la woon tey soog a ñëw mhm. Baye Dioril moom moo ma yar maa ngi koy ziar bu baax maam Bakar suma grand frère Assane xam ma Ablaye Kane maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ziar bu baax Galas Ndiaye ñu Ablaye Touré Pape Mbaye Gueye maa ngi lay ziar waaw waaw waa waaw champion mag am dem maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax yàlla yàlla sama borom taxaw yàlla bi la xewal yëpp yàlla def la roi des arènes yaa xam loo bëgg ci làmb yàlla nag yàlla sama borom defal yàlla def la multi milliardaire nga dund junniyaat ci barki Sénat Mohamed yaa suma doomu day ba ma koow yaa ngi dégg Ousmane Diop suma mag la Kulifay suma rak baa Bam Gon Junior suma rak ma rek tey yaa ngi dégg ci weeru koor la nekk tey wax dëgg yàlla donc nag lamb moom moo leen tax a jóg ndax ci la yàlla moo dogal ma ci yëngu ak sumay morom mais teewul nag nit ku ne am nga yàlla boo na la ay kilifa mhm. waaw sa wàllu àdduna quoi mhm. tey boo xoolee suma kilifa gu mag yi jóge ba Canaba bokk ci ahlu bayti canaba di war a doon sax ñu war a nekk xalif général canaba ñëw tey teewal ba su yi yaa ngi dégg maa ngi koy sant di gërëm di gërëm waa canaba yëpp wax dëgg yàlla yàlla yàlla aar yàlla sàmm ko jéego yi mu def ba ñëw fii yàlla na yàlla sama borom def ñun fi nekk ñëpp muy suñu taw yaa ngi dégg ku fi am jàngoor ak loo fi andi woon ak banque ak xaalis ak feebar ak yëpp yàlla na ko yàlla sama borom teggi ci barke kilifa gu mag yi ñëw si kër gi tey xam mooy gërëm suma doomu nday Matar maa ngi koy nuyu bu baax Badou maa lay ziar bu baax a baax waaye Baye Diop suma grand frère Mañang Malick maa ngi koy ziar bu baax a baax ak sama doomu nday alors xoolal suma nit la ki yàlla moo ñu boole si koñ bi kan la Moustapha Moustapha na defal gaa yi ñaan na defal gaa yi ñaan ah? na nga defal ñaan defal leen ñaan dégg ah, dégg ah waaw waaw ñu jublu ci mbir bi nag quoi vraiment xam nga mhm. may nuyu axlu lamb yëpp mhm. di wax moo gét yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla sama borom jàppale yàlla taxaw ko moo xam nu bëgg yàlla na ko yàlla sama borom defal ndax def na la maanaam li Fadam de wax rek moom moo ci am dafa monté ay combat yi doy waar yoo xamante ni mhm. xam nga koy combat day taxaw sax ñu naan mbëri dañuy tricher wala lii mais combat yi mu taxawal amul benn mbër boo xamante ni daf see bokk ci biir euh, combat yi doon moo xam day tricher amul Mm-hmm. Ama ah, Neex eh, du touriste ci combat. Mm-hmm. Lac Rose du touriste ci combat. yaa ngi dégg ñoom Alboury Njambaan Dëgg. Mm-hmm. Cobra Baara Ndiaye. Jordan. doomu dàngu yaa ngi dégg muy Zarko di man. ba ci ci euh, Alaaji Mbaye ak kon maanaam tëggul kuy touriste quoi kon yaakaar naa bés yooyu day neex may wax Sénégalais nan teew. mooy gërëm nag ki nga xamante ne wax dëgg yàlla moo ko nekkal fii. muy Souleymane nit ku baax nit ku dal. nit ku teey nit ku jub. boo àndaat suma papa Bekar Bekaay Mbaye yaa ngi dégg ak ku ci mel ni Fadam Toumi yi xam ay suma grand pâté suma ménagère yaa ngi dégg père Djil yàlla na ko yàlla sama borom ar yàlla sàmm ko ménagère mat ménagère la moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla sama borom defal yaa ngi dégg ñi encadré nag moo gën moo gën yëpp events yëpp yaa ngi dégg maa ngi nuyu ñëpp xam nga ndax combat bi li ma ci wax ba mu taxawee yàgg na sa jamonoy coronavirus la woon yàlla dogal nag coronavirus jaar fi daa daa daa di lépp lépp domaine yëpp arrêté woon léegi nag bi corona bi si diggante bi am naa fi combat moom fi combat daan ba yàlla dogalaat tey ñu war a àggal suñuy contrat ak moom kon du combat bu bees du ay avance ñu joxaat naan ñëw leen bëre du ay combat yu bees yaa ngi dégg combat ngor ak kóllëre la yaa ngi dégg ak bañ a lekk riba ñëw lekk nga xaalisu jàmbur bu yàgg da war a bëre combat bi loolu la moo tax muy nit am ngor mbëri si yëngu yëpp ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñu waxtaan mbëri dawal comparaison ñu ñëpp xam nga ñu nangul ko loolu ñu oyofal affaire yëpp. Mhm. ba yàlla dogal nag kenn ku ne yaa ngi seen préparation ñuy préparer la sax. le 15 le 15. mai man na ay combat xam nga ñaar ay kii man du ma jàppee de man man daal ay dimanche bi di ñëw daal lay jàpp ay samedi bi ñëw. mais ay la nangam la nangam man du ma jàppee barki yàlla. 15 mai bii 15 mai nga xam ñëw na jàpp <coughs> la. gay ne billahi walaay mais damay fàtte samay damay fàtte samay dati combat man daal bu ñu nee dimanche bi ñëw dellu see wala dimanche bi ñëw waaw ci laay xam nag dëgmal naa bi est-ce que du adversaire non adversaire man yow gayne yooyu nag yow gaw naan ko war ba war ñey bu loo war tam nga war man hmm. man dafa am lu waroo wane yaa ngi dégg dafa am lu wax fan yi yëpp mais ñu bari comprendre lu xamuñu fa may waxee waaye man mii sama jëme ji man ma xam nit ku ne boo wéete di nga xam sa bopp yàlla na ma yàlla lafal cal ma ñu sama bopp loo xamante ni wax dëgg yàlla gëj naa ko yàgg na lool hmm. yàlla na ma yàlla sama borom jàppale lafal ma cat yaa ngi dégg wax baaxul daal mais li si kanam rawuli bët. mais Zarko ma la wax retour ak tour nekk retour bi yëpp day day day retourné waat <laughs> retour bi day retourné waat. dan toog xaar. nee na sañu xam nga la mooy problème bi tey ma damaa dépassé fu mbër di waxee man. yaa ngi dégg ñu ay baama yoon mbarloo kaag mu ñëw bëree xol ak yaa ngi dégg wax ko la neex. jaay dëgg mu ñëw bëree xol ak nekk ragal ngaak nekk ñi ma woo xeex ak man ak zër ko ko fekk man mu tiim man ndax mbaa ñi ma woo xeex ak man wala ñi ma woo jàkk wala ñi ma woo dox sama kaw man moom lan lañ ko war a wax man ba may dox suñu koy mbër boobu moom bëreegul moom ta ñi ma bëral man ñoo ko ëpp fit gën kaa nekk jàmbaar fuuf te ku ci nekk bër bi ne fër ma la gëj da ngaa taxaw fële ak koo mën a doon ba ba dalee takk ngeen ba léegi génn samay combat benn mbër ñu ne bàyyi mu nga day dox nañ ci kaw mu nga anier jéggi na saako julliwaat nañ ko loolu su ma naree fekk ci làmba barki rasulillahi ma tekki sama ngeen ba bu dul làmba sax nit doomu aadama laa rikilal ci kaw suuf pour mu leer kon nag zërko yooyu mu wax noonu fekkee loolu tubaab bi nag stratégie xaw ma da mm. tubaab bi stratégie xaw ma lu leen stratégie boobu naka jël tekk ndale yooyu yëngalu ma moom nen a féete ndaw barki seenaali maa mbagu magu la ko tey fii xam njëkk a bëre njëkk a nga boo teelee bëre rek ñu yaakaar mag nga wala nangam man 2002 laa commencé bëre ci làmb gi 2002 laa commencé bëre yaa ngi dégg am na mbër yu bëri yi fi nekkoon tey samay grand la dama dem ay boppam di leen suivre di leen seetaan te boobu xale bu ndaw laa ñu ma maa takk ngemb wala tolloogu ma ci woon boobu maa ngi yëngu nag moo dogaloon ni man damay nekk mbër damay yëngu ci wàllu làmb loolu sama destin la mënu ma ci dara yaa ngi dégg mais tey ay kii mag ke mag kii mag kii mag loolu wax ju yàqu la rek chaque jour nga mag mbër fuuf yaa ngi dégg de nga ñëw nga daan ko yaa ka mag daan ko yenn saa yow nit mag la fuuf daan la Bombardier ba Gaye ku mag. Bombardier Balla Gaye. waaw Bombardier ku mag. Bombardier moo mag. génération Mike Tyson la. waaw am na ak ak ku mag. Bombardier ku mag. waaw xoolal foofu pourtant Bombardier mag la de daan na Balla Gaye ñëw fii rakkaam am seen daan naka. waa kër génn fi an ma xale ga ñuy wax. nan bàyyi yooyu affaire bi affaire de affaire sa bopp la. yaa ngi dégg affaire de wóolu sa bopp. affaire yow si jëmmi bopp am sa fulla sa fayda. yaa ngi dégg affaire de sérieux ci li ngay def ak sam nawle góor bu mu la gën a gore. loolu la mais du ay ay diw lay ñi ma man ku ma fekk ñu ay jël ko la baa ma ko ñëw la xel man lu ñu ko war a wax moom. kon fu mu taxaw nga fekk ko. yaa gën a xam loolu yow yaa yow yaa li may laaj yaa ma gën a xam foofu ah, yaa gën a xam ne fu mu tax dama koy fekk incha allah mais Baye Mandione mu teg nekk ci ay dynamique de victoire di bëri si combat boo xam ne combat royal la da yéen victoire te Baye Mandione commencé moom ci combat boobu mu nan la ci war a ànd ak waa Caaroy Géej ndax gis nañ sa combat bi passé nga dugg si ci làmb ji dugg si boo xam ne nii kon foogoo ko woon arbitre bi sifflé nga téye sa bopp régler sa combat ci normal hmm. ñam doon àndal ñooñu noonu mu réglé woon ci biir géew lu combat bi laaj da koy def wala bu ko Zarko gëddee day ñu wuy Zarko wala lan la Baye Mandione nar a indi la 15 mai. gay ne Zarko mënumaa gëdd bàyyil ba ko Zarko gëdd du mënumaa gëdd man ku dul moom amul bépp mbër buy takk si ngeen ba taxaw sama kanam may dara may tara si yow amul bi la bu ko Zarko gëddee gëdd xaa ah, boppam may gëdd xaa ah, damay gëdd par an yar daf ni par an moom mais du gëdd ba ma yoon di ñëw non gëdd bi barke bu ko defee combat bi gaaw gëdd bi mooy da lay woo gëdd dox sa garde kay waaye lu ma oo ma ñëw man déggoo ma gëdd dox sa garde sax jàmbaar gaynde hmm. man lépp lu ma oo ma ñëw déggoo ma de combat bi moo moo war la ne sax combat boo xam ba du naa frère lu jàppante di non war na ne combat boobu ndax tey moom ni mu communiqué si combat bii ak man ni ma communiqué mu wax ma lu ma mus sa mbër mus sa wax ci àdduna la ma wax ab tapet nga te moo ma ko ba ma dëri takk la ngay ba léegi maisnam jël ko moo musa ti mbaama joon nekk ragal nga maa maa la ëpp doole maa la ëpp fit yaa ngi dégg de maa la sañ-sañ maa la gën a wagal lool la ma wax nee na moom ëppale yooyu yëpp waaye nag yooyu moppale si gémmiñam la am fii mais du si jàkkaarloo ma moom bàyyi xel loolu mu la wax est-ce que stratégie non la dama non waxtaan moo tax ma lay wax man boo bàyyi xel yooyu man tam maa lay boo gisee may wax dama koy ñaax pour li may wax nii ngir yàlla loolu mu téye ka ba boor bi sifle mu jàpp ni baa ma goon kat bis waxoon naa ko maa la ëpp doole ragal nga amoo fit maa la xeex léegi moom bër bu fit mu taxaw dëggal boppam fas yéene dox sama kaw pour appliquer loolu laa bëgg moom maanaam dëgg la pour mu bañ a war waxam moo tax moom ma koy fàtte loolu pour mu xam waxoon na bàyyi ma njoon lii mu wax mu sàmm ak ah foofu laa waxee boo ñëwee ba lamb ji Zarko suul ay tànkam ne du ma arrière bàyyi ma njoon oh bër daa ngeen solante tànk ngay wax kay waaw waaw ñun xam nañ ne bàyyi ma njoon du wax mu am bus bilaay bu sulee tànka bu neex looloo neex sax combat balaa neex nga suul mu suul nga taxaw am bu bañ a am soliwaatoo loolu loolu loolu daaxal ci combat mais a bon ko gisoo ko mosu na bëri ma ma fan yi passé roi de sane ah, bu Gambie maa ngi koy nuyu muy xoyantaan maa nuyu ah. ma koy ñaanal yàlla son yàlla aar ko yàlla sàmm ko hmm. yaa ngi dégg mu mu respecté waat ay entraînement am hmm. ñëwaat champion la hmm. yaa ngi dégg toog na ay at musa laal suuf ba mu déree ba léegi yàlla moo dogal maintenant man maa ko daan te bu xoolee ci man mi ka daan ñaata defet la am ci làmbul ak ñaata victoire la am ci làmbul ak ñaata bànneex la am ñaata naxar na dellu suwaat yaa ngi dégg nekkaat ci entraînement am jël li mu moom yaa ngi dégg du baaba du baaba ñoon day bëri ak moom daan koo pare rek mu découragé non non bu fekkoon di da kun daan nga découragé kon du ma toog fii doon fi ñëw kon bàyyi naa bëri bu yàgg bu fekkoon kun daan nga découragé kon doo leen fi ñëw kon dégg naa bu ne Baye Mandione ne waaye wax nga dëgg am na bor bu ci doon Baye Mandione de wax nga dëgg ngay wax mais boobu ngi gëm yàlla suñu borom te xam ne la ci àdduna ñàkk loolu lay dund sama xol fekk maa ngi dund xanaa ma xëy dee ñu suuli ma ma ne yàlla tëj na sama bunti wërsëg jeex na génn naa àdduna rob nan ma jeex na kenn ñu wax ne Baye Mandione ah Baye la jeex na mais pour le moment yàlla bàyyi mi fekk suma ruu gëm naa ne lépp sama borom bu góor di am. yaa ngi dégg jàmbaar di ko mbayee muy fulla muy fayda ak ngar ak jom. wallahi gëm naa ne naa am loolu mu yàlla bàyyi suma bakkan mu gaaw mu yeex nag. xeex ba nga doon na ci xeex maa moom nga naan xeex. dañoo xeex waaw. damaa xeex ak moom xeex bu métti laa xeex ak moom. mu daw song moom ma noo mu dëpp te bu te bu tëb song moom a daanu ko. ma daan ko li nga bëgg a wax mooy chaque ah, waaye déggoo li ma la wax xanaa étranger xaw ma étranger loolu noonu gars yi tegee na la man di ma daggal saaga bàyyi wallaahi koro laa gën a àndaat sama sogo. te xam ne affaire bi moo affaire fan la bër bi jugee moom ëffal foofu la affaire bi ne mais du ay wax mais ay wax bu fekkoon mooy daan bër gaynde am na mbër yoo xam ne daanu ci làmb de. mais ñu bëri dañu def ni dañu gis ni njoon heure boo ko touché rek. Mhm. mooy woo nga ko ne. parce que gaynde ma xamal la ñaan rek. mbër moo gis ñu dóor ko ku tëf. mu taxaw naa xaaral ma xaaraat gaynde ab joxe <laughs> ak xeex kenn du ko waaj. nga booy waaj pour ma bëgg a jox xaalis di ko waaj dama naan tey bakkaa jox ma xaaral ma bàyyi bu suba boo xamee du ma mais am garaawul mais bu xatee ma tëbee mais tey man man loolu ba kër may bàyyi bëri mm. sama borom góor ma boo boo dóoree <laughs> boo boo nee benn moom di nga yóbbaale sama bos tamit dina ñëwaale ñaar a ba dënd yi jug ku nekk non règlement de compte am ci xam nga am na émission ba dafa ni baa di wax Zarko dama dama ka xaw a si combat bi dama ko cee xaw a yërëm ci benn yërëm maanaam yërëm gi ma ko ci yërëm mooy wallaahi li mu def ci boppam boobu di ko tëdd di ko yaakaar ni Baye Mandione mi muy bëreel mooy Baye Mandione man amoon ci ay nekkoon ci xat-xat gars yi di daan ba njib ba njib mu muy laajte ndax damaa bëri woon ak bi bër mbiri mbiri changé na de lu leer la wax te li mu war a def bu soobee yàlla yàlla mooy yor ndam moo koy joxe maa ngi ñaan. bàyyi ma ñoon boobu ak bàyyi ma ñoon bii lu leen wutale. <laughs> yaa ngi dégg moment bi mhm. yaa ngi dégg de li na sama xel ak sama xol. ak sama sama gëm-gëm. Mhm. si kanam zor koo mais moom. bàyyi ma ñoon boobu noonu ak bàyyi ma ñoon bii lu leen wutale njoon. dama kaa xam ci côté yëpp nag. Mhm. ci côté yëpp am na loo xamante ne su ma ko waxee émission bi day yàqu. loo xam da ne ma arrivé tak fi fii laa toog di ko wax te fii la xewee fi kër gi parce que Baye ma ñoon daraan dem ak fitam kese samay mag a ngi nii toog du ma hmm. bàyyi ma fen de tey su fen ñu ma tuug sama ginnaaw ma noppi ñu ngi sama ginnaaw di ma dégg ñoo yeewoon ak man fii guddi a bëccëg hmm. ñu ngi fii xam nañ lépp paa sama papa nekkoon na fii dafa mel ni Baye ma ñoon dara hmm. daal ma lay wax sama papa nekkoon na fii sama yaay nekkoon fii pour muy leer mais su ma musaana ñoom ñoom ñoo may seetal ñu ngi sama ginnaaw du ma dégg de. su ma mm-hmm. préparé combat. Mm-hmm. ñu ne Balla Gaye am na combat ak diw combat bu lu mm-hmm. des na weer wala des na deux mois. billahi wallahi taala sama papa feebar pare naa ci entraînement yi. daa day ñëw fi naan day def ay gëm ne saa oh. man talatuma ay ma ne saa la oh, may combat man sama papa jug moo bëgg ay lamba ay for bi jug. ñu ñu may dégg yooyu noonu barke rasulillahi sama combat bëri naa fi combat boo xamante ni jërul mën na maa seede ak Baye Diagne mii. ma bëre ma ma ne ci préparation combat boobu sama papa mi ngi entraîné benn clinique bu ñuy wax mu ngi nekk Yoff boo duggee ci bi mbedd moom la nekk clinique Mbodj foofu. wallahi ma ma war a bëre ji. bi ne suba laay bëre de. ma bàyyi ba ci guddi gi ma dem fa mais ma demee tim paa bi ci kawlal bi nii. yaa ngi dégg. dëkk sama loxo quoi. waaw sa combat bi kañ yàlla ma nekk papa man suba laay bëre waaye papa combat bëgguma gi ndax yow. ndeysaan waaw mu nekk nag lu lu lu lu maanaam loo xamante ni yaakaar naa ne expérience la boo dund ak combat bi nag nga jub tey sax sa xel dem si loolu noonu maanaam li la daan gàllankoor ngay ñàkk sax combat tey te yàlla def na li gën tey yaakaar naa ne kon tey beneen Baye Mandione lañ nar a gis. Mm, mm. yaakaar naa ne tey beneen beneen njoon tey lañ war a gis incha allahu rabi. yaa ngi mm-hmm. ma bàyyi lépp. combat ma la noonu dama bëree ba damay bëree damaa daanu de. billahi wallahi taala soolal. ma bëree daanu. bi ma daanoo laat laat man na maa seede mooy son ménagère. laat mooy son ménagère man na maa seede laat. Abdoulaye Ndiaye. bi ma daanoo may génn. laaj ñëw si man mbër di courage di courage. ma ne ko laat kaay ñëwal mu ñëw mu xëcc. Hmm. ma ne ko dimbali ma laaj ma ne mardi. Hmm. soo mel ni sama reliquat am na ma ne ko boo ma oowee bi ñëw caaree fekk hôpital bi sama papa dafa nekk fële clinique. ma ne ko maa ngi bëri naa daanu mais su ma songoo balaa maa dem. kër ga fa laa jubal boo xamee sax du ma sangoo damay dem ba ci moom ba mu gis ma. ma doog a wàññeeku dem sangu doog dem kër ga. Hmm. te boobu war kër resto daanu naa mais defet bi safu ma la dama am li bëri jiw moon boo xoolee sama combat naa tuus yow seetlu ma la wax. wallahi gëj naa tuus si làmb sama combat yi passé yëpp gëj naa bâtiment bii passé ni sa ma bii nii de da woon mimi rek mimantu nii yi ñoo bi nee beneen tuus dama ne gars yi waaye jaru ko waaye bàyyi la noonu rek affaire la bàyyi la ma bëre pare rek gars yi non non affaire la woon affaire la woon Boucar dama gis ne Baye Mandione day yàq waxtaan waaw day yàq waxtaan gis ne Baye Mandione daa gën a def tegtal ci làmb daa gëj a def tegtal ci làmb hmm? ñu gis combat bi passé mën nañu wax ne Baye Mandione dafa indi mystique bu doy. Hmm. def ay tegtalu làmb hmm. ñu gis ne loolu gëj naa indi Baye Mandione gëj na def loolu. ñëw jaar fu mbëri daan jaar. topp ay tegtal. ñëw ci làmb ji teg cumbikaay fu mu ko war a teg jël làmbam seere ci cumbikaayam déporté wul benn yoon. ndox loolu te ji mën nañu wax ne Baye Mandione doon mi ñu doon wax daa dellu beneen facette ànd ak i mbokkam ci wàllu ñaan ci wàllu lépp lu mbër di préparé wu daan ñëw estaat ndax gis nañu ne bu Baye Mandione bu njëkk daan ñëw estaat bëri daanu dem yoonam mais léegi dañoo gis ne Baye Mandione dafa fonk mystique léegi ak demee noonu bër man tey nit ku nekk dafa am loo xamante ni yaa ko moom am loo xam ñoom ñoo ko moom te yàlla de yàlla damaa jàppale ci côté boo xamante ni man ñi may àndal ñëpp ñooy am xol man amul kenn ku may àndal koo xamante ni xolam baaxul amul ma ñii ma wër ñëpp maa ngi ñoom barke rasulilah jaañ ma na maa seede ñii du ay lamba yi de ay ba may ba may dem di di simba simba jamono simbee may simb maak ñoom la woon wallahi ba nu ma duggee si lamba ñu continuer dem ma encadré nga xam loolu démbal du affaire ay lamba ak kon am dañoo am ci Baye Mandione defal lii Baye Mandione def bàyyi lii mu bàyyi te jamono ji nii waxe yow nii ñoom ñii xam nañ ne instant bi am naa sérieux goo xamante ni jullit laa du ma fen mm. aw ma ko sama combat yi ma jugee yëpp amoon sérieux googu man man daanaa préparé combat barku rasulillahi ba naan ay ginnaaw suba laa suba xoolal nit ñi nit ñi baagante si kër gi daa la dem jàkkaaroo nit bëreeg moom moo tax ñuy baagante fi affaire yooyu quoi affaire du ma ko jëlee dara ñàkkal affaire bi affaire de mystique yenn saa du jox ma gàllaa ma sangol juróom-ñaari fan ma ñëw ba taxaw ni fii laay ñëw bu ma nee nii ngelaw lu ëpp mu sedda sax man ne nii tuur kan daa nga yoxos dem tëdd bu ñu sango na sango naa fekk sangoo ma tus yaa ngi dégg mais yooyu yëpp yàlla dogal na ñoom ñoo ko gindi si ñoom ñii léegi lu ma wax dama koy def ndax instant bi wax dëgg yàlla mhm. su ma toogee entraînement juuma mhm. tey lu ma wax man maa maakal maa maa tooñ sama bopp ndax am naa jot léegi de mhm. ndax jamono yi may wax nii sama papa nekkoon fi sama yaay nekkoon fii aw moon yaa ngi dégg aw moon maanaam yenn jot yi non non ndax ba damaa judd rek commencé tarbi yu waajur yaa ngi dégg yàlla moom ma nattoo waajur yaa ngi dégg mais ñoom ñii nag jamono jii nag man instant bi amoo amoo benn problème wax dëgg yàlla. amoo pression. yaa ngi dégg. Mhm. entraînement yi toog. même caare gi ma dëkk wallaahi dañuy toog ay jamono fii damay génn si ne waaye da ngaa tukkoon xanaa new fi de. nga war a bëreeg nag njoon koo xamante ni tey ko jaral parce que tey ku ne Zarko ne fit ku ne Zarko ne mystique parce que gis ngeen combat bi jaral ko tey ba mu dagg bee dem bitim réew dem entraîné ji kon yaakaar naa ne njoon tey ku la waxul ne am nga combat da lay nax. bër mhm. fala dem. dem na wuti doole de. ba dëkk la dem jàngi xeex France. ah France. damaa bëgg bu jege France. waaw mu dem États-Unis jóge fa jaar Indo dem Màkk mujjee Màkk doog a ñëw bëri si. <laughs> bi du si yooyu ma xala ko tey. Mhm. saa la nekk France ñoo nekk fii. te amaana fii am na loo xam fii am na loo xam te sax te France googu ne am fa man bëri njëkk a voyage si pour muy leer. Mhm. bëri njëkk a dugg États-Unis si laa te ñu may ma visa bari mais ba ma demee wallaahi boo duggee États-Unis semaine laa fa def doyal sax damaa doyal ni li waaye yow wax ba gi dëkk bi dara ndax Sénégal gii pour mu leer man damaa jaar ci am combat génn préparé wu ji kon nag moom bu amee man combat préparé wu ji dama koy soññ bu demee na gën a góorgóorlu ci entraînement maam yokk ay entraînement am ci côté yëpp ba pare mu yokk maasam encore waaw na yokk a maasam ci combat bi damaa bëgg maam moom bu ñu taxee loo matoo bañ am ñu tolloo ndax boo xoolee jamono yëpp man damay wàññi poids jamono yëpp wax dëgg yàlla jamono jamono yëpp damay wàññi yëpp wàññi poids bi lu ko sabab ngir bëgg dama ah, combat bi laa bëgg mu neex ndax combat balaa moo neex dëgg dëgg loo matoo bañ cee am yaa ngi dégg ngeen taxaw nekk ay naataango loolu laa bëgg suma diggante ak moom. da a xeex lu ma de loolu laa bëgg suma diggante ak moom kon nag foofu mu nekk lu mu entraînement naka xeeb lu mu préparé naka xeeb. Mm. te xam ni man mi wax yow ni tëddu ma nelaw ma pour muy leer. Mm. léegi ma nelaw maa ngi nelaw de tëddu jàpp sama lees quoi bu bu bu liggéey foofu moom na jàpp ni dugubu ma ngi koy liggéey fii pour muy leer. pour muy leer ndax du moom rek laay liggéeyal du moom rek. ndax dafa am ay combat yu suma kanam yoo xamante ne dama am lu ma perdoon ci làmb man te dama ñaan yàlla soo borom jëli jiwaat ka te sama combat ak moom bi combat kóolóore ak ngor la. suñu diggante ak moo gën il faut ñu il faut ñu gérer Zarko mu jugee fi ñu xool suñu kanam. mais est ce que Zarko moo jëli combat yi génn si Zarko Zarko Zarko les. da ko bëgg a oyofal te Zarko oyoful de. affaire oyof li nga wax foofu de. gaynde hmm. ni ku nekk yaa xam sa bopp mooy la ma la wax sànq rek. cat baaxul daal nan yàlla may ba jour ba maa moom rek. ba arbitre ëffal nu incha allah foofu. yi nga war a jëli waaw jëli. bàyyi ma ñoon ni muy waxee. waaw ko bëgg a laaj. mu ko mel ni ay moromam ci làmb dañu ko ram. waaw mu jàpp ni war naa mën a yegg foofu. Hmm. du Zarko moo daan roi des arènes Gambie da ngay yàqamti. non xam ñu bëri pour réeré mbir ñu ne pourquoi Baba Ndione daan bu Gambie war a bëre champion mag yi di wàcc di bëre ay Zarko ñu bari la doon wax te sama combat ak Zarko moo jiitu. moo jiitu sa coronavirus bu la woon. ci diggante bi yaa ngi dégg waroon naa bëri mu yàqu ñu bëriwaat fii mu nekk. yaa ngi dégg mais tey sama morom yooyu nga ràmba ma xamal la benn nag nga làmba ab fi am ay. ab ay nga ay ay moo fi am. ku sa jamono ñëw da ngay aye ba Sénégal yëpp xam ni diw moo ay yaa ngi dégg. Yékini ba mu ci wax ah, ki day war a bàyyi ko daan. loolu la ñu wax. fàtte yàlla. Tyson ba fi tolloo lu doon wax bu daanoo sorol ba nekk a Baye mooy daanu mais Tyson kenn mënu ko daan ci làmb yaa ngi dégg mais ba seen ay jeexee loo gis dëgg ku nekk sab ay mhm. te damaa ñaan yàlla na jamono yi ma toll nii nii gars yi doon aye ma aye noonu yàlla moo koy joxe ta yàlla mu ngi fi te gënuñu maa gëm yàlla gënuñu maa nanguy dogal pour muy leer foofu laa foofu laa ko teg ma du question ay rawante làmba rawante amu fii làmba bu fekkoon ay rawante dafee am man du ma bëri Zarko mii ndax bëri yaa ngi dégg écurie Modou Lo la nekkoon sama combat moom may bëre ak Moussa Dioum mook Sa Thiès ñoo bëre euh, combat bu ndaw bi tey su ma xoolante ay rawanteeg ay ay ku juddoo ku wàññeeku ma du ma bëre ak moom bëri na ay champion yu bëri ay mbër yoo bëri naa ñoom te waruma bëre ak ñoom mais mais il fallait que mu bëre ak ñoom ndax samay morom tey duñ ubbil benn booy saas yaa ngi dégg di tekk seen i biir ngir xaalis ba leen di fay ñu bëri na yaakaar ay ay ay grand contre a grand contre petit yaa ngi dégg dafa war a mën a am mais yaa dégg mais ci kaw grand yi yéene. booy booy yi xaalis bi leen fay. ci kaw grand yéene leen loolu mais dafa am yoo xam ne yéenewuñu booy millions yu bari yi. boo tax ñu takk seen biir boo def ko baal waaye du maa rew waaye moom man nag du ma genre boobu. su ma jugee si seen ko mii. Hmm. bii gën a xamee ma xamee ma koor ak bii damay liggéey lu doy war lay liggéey barke Rasuul laay caaxaanuma de jàmbaar man waxantuuma suñu waa kër mën nan maa seede billaahi wallaahi tallaahi Baba Ngone junior ñoo bokkoon rek waaye sama rakk la ñoo yeewandoo fii billaahi wallaahi taalaahi su may dem géej fayal du ma yëg mu ngi nii toog du ma ban bu ma fayee na ma damay fen kër gi fii sama jabar rek kaay ko yëg ba sama mag bërki démbali jékki-jékki dama yow jaxate chaque jour yaay géej di entraînement yaay dégg ban koy dégg ci mbedd loolu dara koor lan ne koor laa jul bir bi da nga yoxasu dànk liggéey liggéey liggéey balaa nit ñi yeewu nga ñëwaat bu ngoonee nga yoxasuwaat dànk dem liggéey liggéey liggéey toog jàpp si ñàmbur yaa ngi dégg ndax am na loo xam bu daloo sa kaw gaynde billaahi mhm. tey su ma defee su ma simee ko ba set taxaw def taal neen nen tiim yëre yi nii tiim ko tiim ko di xaar ku ma ko solal soom noonu ma naa ñëw ba jigéen ba ne wa nga def na taal ci nen nag day kontaan a solal ci àdduna mais bu ma toogee soom xel dellu si waat mu ne i woo man woo man lu ma simbi def naa taal ci nen man noonu bëri di sol bu gaaw laa koy sol noonu la xat-xat nekk nag boo si nekkee mm-hmm. donc nag di nga sabalu di nga ñaan yaa ngi dégg mm-hmm. mais yow sa jëmmi boppa yow balaa laa kenn naa génne sa jafe-jafe si yow la war a njëkkee yaay volontaire sa bopp yow yaay volontaire te jamono ji boo waxee nag falaat nekk wallahi ñi nag samay kilifa lan de mm-hmm. ñooy sama lép tey ñoo fi sama papa ñoo fi sama yaay ñoo fi sama lépp ñoom ñii mm-hmm. yaa ngi dëgg de mm-hmm. waaye instant bi dinaa leen déglu nag ci wàllu conseil ci nangam waaye dama rus sax jamono ji ñaamaat baa ma gën la ma tax démb dama entraînement dama ko rus sama diggante ñoom jamono ji xam nga laa xaar su ñoom waaye baa ma gën noppalikul boog waaye baa ma gën wàññi entraînement su ñoom mais mais du du ab soñña dama la non non non non. gaynde mhm. mhm. yàlla ñu yàlla may fekkee tal wallahi dafa am lu ma sama bët bii. Mhm. sama bët bii. dafa am lu ma fu ma ko teg. te bu soobee yàlla bu ma yàlla mayee ba kenn. wallahi incha allah yàlla yàlla yor na lépp yàlla yàlla mu ko yàlla defal bu soobee yàlla. may tëjee nag mooy maanaam tey dafa am lu lu ma touché sànq mooy fi nga njëkkee rek même maanaam mbër ak gëm yàlla mbër ak wóolu boppam waaye mbër ak maanaam tey am li nga xamante ni tey mooy maanaam tey gëm sa bop muy sang-froid moytu woo ñu yaatal nga ñu waaye a touché mooy maanaam tey ma jëlee témoignage ko wax mu a njoon dafa baax ko wax mu ne njoon dafa yëg nit njoon dafa yéene nit te yaakaar naa ne nit moom li nga wax la rek tey ñoom Falaye Baldé yëpp maanaam tey wéy bu rafet lañ fi lañ bàyyi rek ba tax nit ñi tey di toog seen xel di dem si ñoom te yaakaar naa ne loolu mu si bàyyi ma ñoon bi ma bëggoon rek loo xamante nii tey euh, avant nga tëj avant ñoo ñëw si côté mobilisation sa diggante ak dafa mel ne maanaam tey am na cofeel gu ne seen biir. gerte bu ah, ne lay laaj. maa ngi jël leen ma. Ah, ba ba ah, non kon moo jullit. ko mënul. waaw baax dafa am solo. kan ma wax kan yéen ji ma ma yëgal ne bàyyi ma def ndogu. ku ma wax. lu lu tax ma ñëw. ak ak bokku ci. ma joon man dama nekk ci weeru koor. Serigne Touba li mu def bu ko neexoon rek mu yemale ko ci ñi sant Mbàkke waaye xamewul Tijaan beeg Murid beeg Laayeen bi Laayeen bi naka noonu gis nga nañu waxante dëgg te yàlla tax xam nga li tax ma wax la li nga wax ba tudd say waajur ak say mbokk nit amul lu dul mbokkam te nee nga boo amee yaa ngi ak say mbokk soo ñàkkee yaa ngi ak say mbokk te nag dina la leen de ñett a nii soo xewlee gis say mbokk kese bàyyi ma ñoon xoolaatal say bopp. soo soo lee gis say xarit kese kese bàyyi ma ñoon xoolaatal say mbokk sa bopp bis boo xewlee gis say dëkkandoo kese kese kese bàyyi ma ñoon xoolaatal say bop waaye bis boo lee gis say mbokk gis say dëkkandoo gis sa xarit loo def ci jaamu yàlla rek du niil bay ma njoon yàlla na la yàlla fal cap ci barke naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax nag wax nag daa ma ah ah daf maa jox nag suukaru koor te mënoon ne tey nag ngeen baal ma nag xam nga ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te damaa bëgg a lekk ci yàpp yi maag alaaji Mbassa Assou Sow ak Ousmane Diouf oxygène mm-hmm. maag Paala Diop euh, maag sa Bargane Sud Banlieue man ma raay befe maa ma ba xalaa ak Bour Guéweul Bour Guéweul ñu jël ma Saliba mu nekk suñu consultant ñun ñett ñu géré ko ah hmm. kon na ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi tey na dama lay wax leen bàyyi ma ñoon xol bu rafet la yor gis nga lii rek moo am solo yal na la yàlla lafal cat may la ndam lu seddu guy suñu waajur yi nag yal na leen yàlla xaaru àjjana caaro moom lii rek la ñu booloo rek lu ñu bëgg mën nañ ko am waaye nag li may bañ mooy ànd jayante tàggali koo jëwante suñ ko dee def ba ilaa yumi diini ndam duñ ko mas a wala boog par kenn rek koy am kon yàlla na yàlla defal ndam defal ko rek rek waaye yéen ñi journaliste yi yàlla na leen yàlla defal ca def nii am na solo trop am solo dëgg ndax nag am na ñoo xam ne bu ñu tëggoon làmb kenn du dugg ye waaw da ngeen waaw da ngeen fay jege sax bay dugg yàlla na leen yàlla defal cat am na solo am na solo waaw a ah, ah. Boucar dafa am loo xam ne nii Baye ma da koo tàmmaloon amateur Sénégal yi hmm. te bàyyi ma ñoon gëj naa tuus ci làmb te yaakaar naa ne chorégraphe yi gënoon am solo ci wàllu làmb moo Keba ko di ci làmb ndeysaan te yaakaar naa ne bëri na artistes yi way tëgg yi ñuy tëgg moo Keba ñoo ko fent dëgg la quinze mai bésu fête la fête de la jeunesse la moo mm-hmm. lan lañ ci war a mën a xaar ci wàllu tuus ndax nee nañ gis ngaa tuus wala bii baa tamit a koy jaar waaw dëgg la question boobu dafa am xuus mais li ciy wax laay xuus parce que tey yaa ngi dégg euh, xam nga nu ko expliqué sax sa doomu aadama man a am lu bari loo xam dama kaa marqué te marqué boo xamante ni samay waajur laa ko xoolee yaa ngi dégg sama papa da daan voyage yi dem fu ne ci àdduna fépp foo xalaat ci àdduna avion wàcce na ma sama papa ji ma jur yaa ngi dégg daawul nelaw guddi da daan taxaw di tagg Sina Mohamed ba bës set wécc guddi ba ci la daan nelaw pour muy leer mhm. lu mu am ci àdduna ba ci kër gi nii nii nii mu ko am yaa ngi dégg tagg Sina moo ko may kurus pour muy leer ma daan gis Moussa na dugg ci nit ñuy baagante fii di yor Mm-hmm. di baagante man ne xale di xoolool mën a waaw man su baax moom xaal daa liggéey lii yor dugg si kër rek xaw ma nu demee mais ma ne ba xam ba xàmmee nag mu ne ah ok li ko doon dal dal ma nag ma ne ah kon ay affaire la woon mm-hmm. ay jàmm yàlla la woon yu daan am ay kayiti ordonnance daan am ay jafe-jafe daan ko jox ma ne kon ba ma nekkee xale kon sama li nit ñi daan baagante fii kon loolu la yàlla dogal moo ma dal tey gay ne billaahi wallaahi ku fonkul doomu aadama comme yow yaa ngi dégg de boo dee safara nga jëm wax la ko tey amul julit amul chrétien wax la ko tey ndax yàlla suñu borom wàccul jox ken mais amee hmm. lépp lu mu yor doomu aadama la ko jaarale da jox kii ki jox kee kee jox kee ba dund jeex dëgg la man su ma deewee xaw ma kan moo may suul xaw ma kan moo may ñaral xaw ma kan moo may tuddal yàlla dama si karal xaw ma kan mooy téye sama jàgg yaa ngi dégg mhm. xaw ma kan moo bu ma dugalee ci bàmmeel xaw ma kan moo ma yor di ma di ma téye di ma di ma di ma di ma di ma teg di ma placé xaw ko mhm. xawma ku ñëw sama dëj xaw ma ku ma ñaanal mhm. waaye nag yéen yéen ay journaliste te kenn na mënta wax làmb wax mbër génn ci journaliste mënta ne tey bu leen génne ci journaliste rek yaa ngi dégg mu ngi mal ni nga sañse nga sañse ba pare sol mbo solo tubéy la mel yaa ngi dégg tey làmb bu ki journaliste amul day soof mais su may diggante su may dëkkandoo man duma ma ci wax dal na du ma ci wax mooy sama diggante ñoom du affaire dëkkandoo ñoom ñoo ma jur ñoo ma yar manuma rëy seen kanam man ta nekk su ma amoon minti milliard billahi wallahi tallaahi du ma am gardien du ma laqatu kenn. Mhm. wallahi yéen ñii ay journaliste yi ngeen. Mhm. da ngeen fay ñëw tey pour interview ma sama diggante ak Zarko yaa ngi dégg de tey ku fi nga boo den kenn ne baa ngi moo bëgg billaahi wallaahi tallaahi mën naa wàcc sama loolu bàyyi la nga finaan ma des sama jabar na finaan sal bàyyi néeg bi si biir lu may wàññi wàññu ma dara ndax li a bind sama jibi lu ma war a billaahi mindeef ma war a ñàkkee it mindeef dara hmm. man foofu laay xoole du ma ragal nit du ma fiir nit hmm. du ma fiir dara hmm. bi ngeen fi ñëw wala bi may commencé toog di wax laay doog a sol daal su bëlee tànk ne laa def fii tam na mbër yoo xam bu doon ñoom ñooy xalaat naa waaw man su defee tànk baa doon suuf mu dëgg ceeg baa doon nàngam mm-hmm. di ragal ni taka maytu barke rasulillahi tey boo demoon tey yendu kër jël ko suba ba ngoon ñëw na ba am ngoon gi jël ko laa yendu suba ba ngoon dama bëggoon ñu nga finaan fii ma ne laa ñu finaan ba suba dérangé ma mm-hmm. ndax yàlla noppi na yaa ngi dégg mais samay dëkkandoo aw ma seen fay waa caaree laay wax sax ndax caaree aw ma finaan interdit yaa ngi dégg tey nekk ci dëkk tey yaa ngi dégg amul kenn ku ñuy dëkk micro mu wax sew safaan mm-hmm. loolu yombul waaye mais du ci man mm-hmm. man du ma dara man ab jaam yàlla bu xeebula laa du ma tus ja teguma sama boppa fen ñoom ñoo baax mm-hmm. ndax képp ku taxaw wax baaxul yaa baax ndax ndax nit borom xool bu bon ak nit ku bon du wax si nit lu baax ndax nit ku bon mu ngi xool benn faay bu doomu aadamam def ba mu dem na tëri waaye di diw yow diw la léegi daa torox diw nangam liggéeyatul diw nangam la borom xool bu bon di xool si nit mais yow tey geste boo def lu mu gën a ndaw balaa mat seconde yaa ngi dégg am na di la woo téléphone di la ay waay li waxtaan waxtaanee tey rafet na li nga wax si mbërëg diw mbërëg diw mbërëg diw rafet na mais loolu du ci man hmm. ndax bu bu dee baamu ngoon rek man maa fi dàq dafay ko daa fa def tojaange maa fi dàq maa fi dàq maanaam bu wax ay wax ay ay njaaxum ci ci ci micro hmm. mais teewul nag làmb ji mooy laaj loolu ci yenn saa yi nga doko ne hmm. waaye nag bu jeexee nag da ngay ñëwaat ci kër gi nekk am xar bàyyi ñi ngi sa kaw boo boo boo solo si moom làmb nag nekkal gaynde ndax booy xaraji doo bëgg ku la yem na ma wax dëgg nag ñun ñëpp ay góor yàlla lan kenn ku ne bëggoo sa morom tiim la yaa ngi dëgg de mm-hmm. waaye sooy dem jàppel ni yaa man jàppel ni yow maanaam pouvoir bi yaa fi téye ndax yàlla moom moo koy joxe bi bi la xalaat mukk ne man maa ngi dem waaye sama morom góor bi moo man bi nga xalaat man du ma doxee noonu mais kon nag su may dëkkandoo yéen journalistes yi après képp kuy yëngu ci làmb yàlla na yàlla sama borom aar ci barki Seydina Muhammad yàlla sàmm leen waaw faramtu nag yaa ngi dëgg da nga wax question bu war moo tax ma ne sa bu commencé ko day neex ndax xam nga moo tax ma du si combat bi dafa am lu war a waral loo xamante ne war na ne ci combat rek ci domaine yëpp nag ci côté bépp moo tax ma la gën naa tuus daa am lu ko mais bii gën naa répété sax gën naa am combat répété mais bi dinaa répété dinaa tuus dinaa def sax ko koy waxatee non non open press waaw ah, ah. damay def open press gars yi ñëw yaa ngi dégg <laughs> bëgg naa loolu encore gën naa kaa def quoi bëgg naa loolu tamit ñëw ñëw gars yi ay champion yi daanaan de mais gëm naa ne bu jour waaw wax dëgg yàlla su ma xas su ma tuusee moom bé hmm. boo ñu profité tuus li tuus de leer nag waaw na na tuus ñoom daal na profité tuusee tuus gars yi yuuxu zëmbale waaw bu nangu daal ma njëkkee ne tuus daal fa laa yem jon ñu la nga tàggatoo nga tàggatoo ak ñi lay seetaan mobiliser tamit hmm. si supporter woo waa caaru géej woo ñi nga xamante ne ñoo sopp Baye ndax naa ni combat bu mag la ci wàllu làmb. waaw balaa maa tàggoo dama leen di remercier quoi parce que di leen jégalu ndax lii dafa metti teg ay caméra pare taxaw benn place ñii def nii rek ñii nii benn place. Mm-hmm. maanaam boo taxee benn place lu yàgg toogoo day yaa ngi dégg sama toog moo ciy boo toogee yàgg a taxaw sama xel taxaw boobu la ñu ngi taxaw tim seen i caméra ak sama mm-hmm. yàlla na yàlla aar ci barki Seydina Muhammad yàlla sàmm leen bu baax a baax. ñi si amul jëkkër yàlla yàlla may jëkkër <laughs> ñi si am benn yàlla may leen ñaar ñi amul dara nag nañ wuti dal ngi dégg may gërëm bu baax wax dëgg yàlla euh, waa Thiaré gi bàyyiwuma kenn ak fépp fu bàyyi ma am fan ci àdduna yaa ngi dégg su ma rak astafal na dafay ne teraanga sax ndeysaan sama doomu baay la nit bu baax yàlla ko yàlla ngi dégg ma jigéen sama doomu baay mm-hmm. yaa ngi dégg de mm-hmm. ma jigéen doomu baay mais jàpp ma ko doomu baay dama ko jàppe ku ma bokkal nday ak baay mm-hmm. man maa yaa ngi dégg waa kër gi bàyyiwuma kenn ñoom matulaay nga suma soxna mag suma lépp yaa ngi dégg kër gi daal képp ku fi yeewoo ku nekk rek ak dëkkandoo yi tout tu tout sama papa Mper Mbaye Gaye yàlla na ko yàlla sama borom baal kilifa gu mag la dafa bàyyi léppam ñëw yaa ngi dégg képp ku ne si ginnaaw nag tudd ma sa maa lay jégalu waaw waaw waaw ndeysaan a faal ak yaayam sëriñ Mbow Baye Mbaye champion mag bi baba ba ziar ñëpp Ameth Deme xasaar Ndiaye waaw ak sama sama rakk Adama ngi dégg maanaam ñëpp ak ngir ñi nga xamante ne suba ñu fi nekk ay togg yaa ngi dégg yàlla yàlla a yàlla sàmm nañ barki Seydina Mohamed yaa ngi dégg tey ak togg balaa moo neex man man man man man man li ngeen i nii neexuma de man li ma ci neex mooy jàmm yàlla ñëw ñëw ñëw xéwlu ba yëkk man ñu ko ñu rek man loolu ma ci nekk ci affaire bi moo ko tey wallaahi kon nag yàlla na yàlla aar ci barki Seydina Mohamed yaa ngi dégg xale yi nga xam ñu lay nekkal bu dégg bëccëg yaa ñoo imam ñoom Mohamed sama doom ñoom ñëpp yaa ngi dégg maa ngi gërëm ñëpp waa vraiment Serigne Assane yàlla na yàlla sama borom waa yàlla sàmbala barki Seydina Mohamed gërëm bu baax nag suma papa suma kilifa suma lépp muy Tahirou Sarr mënumaa def mission ba jeexal taw xuma ko ndax si teraanga la dëkkee ak man wallaahi si teraanga seetaanu ma ci dara. Hmm. lépp loo xay xalaat ni bàyyi mu ngi koy defal doom mu ma koy defal. ndax dafaa xool ni man ni ma sonnoon samay waajur mu xam loolu ci man mu ne ma bi sama waajur génnaat mu ñu dugg ci albert yi ma ak moom. mu ne ma da nga ni bàyyi ma njoon sa papa mu ngi lay de mu na ma jàppale lu jugoo fi maay sa papa lépp lu waajur defal doom naa la ko defal te ba mu ko waxee ba léegi mu ngi koy def mu ne ma yaa sama taaw Mouhamed laa yemal wallaahi dama defal loo xamante ni billaahi wallaahi taalaa ma neexoon tey bàyyi bëri du ma wàññi tus tey waaw ma neexoon tey tey léegi ma bàyyi bëri du ma wàññi dara te moom dafa bëgg a jàmbaar moo tax man du ma bàyyi ba lu ma mën a defal ci àdduna yaa ngi dégg sama papa suma lépp la mu may jàppale mais moom daa bëgg a jàmbaar xoolal sama combat yi passé nii billaahi wallaahi dafa ma woow yaa ngi dégg Vito mun maag moom mu a ma mbër dama lii xoolal su combat bii nii du sa combat sama combat la yàlla moo ñu boole ngay suma doom di sama lépp man ma defet yaa ngi dégg de boo daanee ma may la carte carte bu bees tax ak nangam ak nangam ak nangam ma ne ko bëgguma bëgguma nga may dikk yow suma papa nga yaa ngi dégg ma ne ko nag gën naa xeex ci lamb nag mais di ma tax a xeex waa ji <laughs> wala ma jàppee yëbal waa ji ah. sama xel dem ci lamb <laughs> lu mu la dig ci bi. waaw yaa ngi dégg ba def ay affaire foofu ma rek mu nga loxo yi tuuti yaa ma gën a xam. lu mu la dig ci moom nag suñu diggante du yooyu nag wax dëgg yàlla xam rek moom moom moo bëgg a jàmbaar rek. waaw kay loolu ah. yàlla France boobu nekk mooy li ma wax ko fi yàlla sama borom taxaw yaa ngi dégg la tax mu dem fa entraînement yi uti doole <laughs> yàlla fa am doole <laughs> yaa ngi dégg das das fa loxo yi bu baax baax a baax a baax yaa ngi dégg muy récupéré nag ndax boobu boo damaa jaar si dem dem Europe entraînement ji. Mhm. waaw yi boo leen toppee nii dañuy a gan quoi xam nga yenn saa yi nga entraînement après bëgg a ñëw sa gars yi ne la sa waay nan nan nan doxantu gi naa nga ma bu mu nangu yooyu ji. <laughs> waaw na entraînement su récupéré bu baax te xam ne am na bis loolu laa koy wax. xam ne le 15 ma la de. li ma koy rek. Ah. la la boppam. Ah. wallaahi bu ko baa bi jeexee na taxaw ne waa man mu demee nii.